ngi fii tey ci mobile sound studio ñëw ngir daal di seet

Euh, Malik ñu ngi lay nuyu ok ngi lay fay soxna si aha di nuyu aussi sa euh, cameraman yi nga àndal soxna may di la bu baax aussi di nuyu ñi nekkal muy euh, sama chef de orchestre ay Idi Clavier aussi di nuyu groupe bi ñëpp ñëpp ñëpp bàyyi kenn aussi di nuyu sénégalais di nuyu africa reggae nekk benn style bu nga xamante ne Bob Marley gën nañ ko ci xam ci loolu mu nekk benn style musical boo xamante ne it dafa dafa engagé comme on le dit day dénoncer day day day day déglu askan bi. maanaam day tabax doomu aadama ay message am dafa fort si dit mun na tabax lu bëri si réew mu ñu nekk moo tax ñu ñu opté pour def reggae pour mën a véhiculer ay messages yoo xam ni dañ mën a defar lu bëri ci réew mi ci lu d'abord de pour jubanti. ñu bëggoon rek nga dal di ñuy may touti ci sa album bi nga xamantene euh, dal di nga koy def nga koy waaj lancer parce que euh, album bi may euh, def ni nek na liggéey bu diix ma xam ma ànd sama côté technique musicalement mu ñi ma limal légui ñu ànd ci travail ko da 2 ans et quelques ba ñu pare ci montage yi di nekk ci ay répétition pour waajal album bi. di nga ñëwal ñu tuuti ci li nga xamante ne mooy essence su thème yi nga xam ne développé nga ko. Mhm, parce que soo xoolee album bi euh, am na titre bu ñuy wax Ahmadou Bamba pour fàttali nit ñi jàmbaar joo xam ni liggéeyal na l'islam bàyyi fi muy royukaay woy nañu maam Cheikh Ibrahima Fall loo xam ne na la Baye Fall war a doxee ci biir réew ak foo mën a ne aussi woy nañ diggante waajur bu jigéen euh, ak doom. nan la fi tànn way nañ diggante nit ñi ak yàlla seen borom bu leen sàkk way nañ li wax tamit soppi doxalin ci bépp dëkkuwaay si bépp tolluwaay ndax sénégal dafa jot pour nit ñi soppi doxalin si esprit si environnement bi si tolluwaay doxin yi kër yi mbedd bi lépp dafa war a sell xel yi daal war na mën a gën a sell aussi nañ dem dem fight kon ni ngeen nekk nii yéen fight rek ngeen nekkee waaye ñëpp dañ si gis seen bopp parce que laal nañ actualité yoo xam ni mooy képp kuy yëngu rek di nga gis sa bopp si dem dem aussi tamit parce que onze titres la voilà way nañ si euh, manam, ay développé nañ si lu bëri véhiculé nañ si ay messages yoo xam ni gis nañu sénégalais yi dañ si gis seen bopp parce que euh, jàpp nañu message yu dina tabax lu si Sénégal incha allah rabbi. incha allah rek euh, ci thèmes yooyu nga xamante ne daal di nga koy ci sa album bu bees bi di nga ñu rek ñu dal di mën a béggee. waaw dinaa leen si compal Aha. d'accord loolu dafa may neex loolu daf may neex te dina neex aussi suñu téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy tàmm di suivre Dakar Actu milieu musical au Sénégal fi dafa nek lo xamantene fi mu nek da mën naa dafa saturé jeune nouvelle génération bi dañu ñëw fi mu nek ni ñëpp dañu am talent légui yeen ñi nga xamantene au moins def ngeen fi am ngeen fi expérience tey jii euh, ban appréciation ngeen di def ci lool wa parce que euh, milieu bi ñu euh, ko waxee ñun xamnañ lool sax moo waroon ñu jël suñu propre engagement. li ñu ne autoproduction ñu ñëw ji ma jël ñu tabaxal suñu bopp suñu album parce que gis nañu reggae fi ci Sénégal soo ko fi bëggee def soo amul ay jàppale dëgg pour nga génn si day yomb parce que xëy na am na xeetu musique yoo xam ne moom lañ gën a gëm. est-ce que du musique yëpp moo mais euh, dañ ne euh, fagaroo gën faju moo tax ñun dañoo nekk si millier bi gëm suñu bopp takku xam nga fexe li ñuy def ba suñuy message ñu mun ko jox Sénégalais yi aussi di lancer appel di jeune talent yi ngay wax ak ñu nekk si yoon bi bu kenn xaar kenn si leen da ngay nekk si lu ngay nekk am si gëm-gëm. nekk si di liggéey ku la si fekk nga jël parce que yàlla moo ne fépp moo loolu ñu gëm nag moo tax ñun ñu fexe ba mun a tabax loo xam ni maanaam suñuy moyen bopp lañ demee ak suñuy xam-xamu bopp ñu ànd ko muy benn groupe boo xam ni mun naa ne sélection africain la benn groupe africain lañ tabax boo xam ni dañu jàpp ne Afrique moo tax ñuy liggéey parce que mooy suñu engagement voilà

nga xamani ni euh, gis-gis yi aussi ya euh, bokul nit ku ne fu muy gisee mais ñun euh, gis nañu mun nañu laal politicien mais pour tabax esprit pour yokk ko si xelam parce que dañoo nekkee nit ñoo xam dañoo engagé duñ classe duñ saaga duñ xas kenn mais suñu message mun na defar sax président bu fi nekk loolu la ñuy jàpp parce que dañoo toll si moment boo xam ni. mu dam koy wax jaratul toj jaratul yàq lépp lu ñuy def nañ ko tabax suñu xel ak suñu xam-xam ak i taalibeeg yar ak teggin aussi politique moom si Afrique gis nañ nu mu demee voilà voilà dirigeants yi souvent waa noonu la fay demee mais su toujours nañuy dem ak suñu tolluwaay ak suñu engagement ak suñu gëm-gëm parce que tamit euh, état dina doxal mais ñun tamit war nañu ëpp doole boo xam ne ñun dañ doxal te du am ay rëkk-rëkk lu mu ciy gën a wax rek mooy di lancer appel nit gën a te xëy na politique yàlla moo ko njëkk def sax voilà euh, nga xool tamit doomu aadama yi si moment bu ñu toll tamit gis nga ni réew mi jaxasoo yi bëri na gis-gis yi wuute na c'est normal àddina moo demee noonu mais nañu éviter loo xam ni lépp Sénégal la benn bopp loo mooy politique yàlla moo ko njëkk def foofu waaw parce que su mu la nee politique yàlla moo ko def rek su nekkee da ngay dellu si armoire mu nga indi nii yàlla bu mu ñëwee dafa jël Seyna Mohamed ne kii suñu jàng mooy gëm ni mu ndeef nga xool si ay nit ñoo xam ni quelqu'un day jël benn nit boo xam ne moo tabax si moom nga xool si ay Yeesu Maria ak ñoo xam ni jaar nañ si ay nitu yàlla yoo xam ni yàlla moo leen tabax muy ay yalantu yàlla ay Moussa nga xool ñooñu kon yàlla njëkk na def politique gënalante na mais gënalante bi na nekk loo xam ni di dëppoo lu yàlla di wax te di dëppoo dëgg te dëppoo day dëppoo defar ndax àddina yàggul fexeel ba yow nit ku ne rek damay ne soo génnee sa bunt kër yaa mën a def lu sa réew di yokkee yaa mën a def lu sa réew di wàccee waaye wàññee ko kon nit ku ne dana nekk benn quelqu'un boo xam ni yow toujours fooy doxee rek yow dañ lay dañ lay dañuy wormaal dañuy xam ne nit nga nit nag ñaar la nit nite nit moom jëmm la rek mais nite mooy esprit bu la yàlla jox nga mën ko doxal servir que jaam yi esprit comme nu ko waxee yang may fatali sax suñu benn collègue esprit barxaamien euh, comme rek ni nga ko waxee euh, esprit moy doxal rew nañu tek lepp comme ni nga ko waxee daal di yëkkati daal di jugandoo dóorandoo daal di tabax dëkk bi mu taxaw mais dama gis ni kay reggae fi comme si suñu artistes reggae ils ont tendance à voyager dem ci biti gën fofu la ñu gën évoluer amo waral vous mm-hmm. waaw parce que combat bi ñu bëri am na ñu leen dawloo parce que souvent soo ci waxtaan ak ñenn ñi dañ leen ne Sénégal lu ñu gën a moom mooy musique mbala soo ko deful duñ la mun a xam mais dama ne non mun nañu war a mun a def reggae ba mun na ba Sénégalais mun ko consommer ba ñu dugg seen i yëg-yëg nan lañ ko defee mooy ñu éviter sound système yi parce que soo duggoon tey si sound système yi si bëri ñu lay wax nii maanaam jameek lañ lay yóbbu wala ay musique yoo xam ne à la ñuy nekk. mais ñom seen bop sax ñom ñukay organiser gëmuñ seen bop kon dafa jot nak reggae mëna ñoo dugg ci boîte ñu loolu lañ paré fexé bay def ay soirée def ay live di dem ci région yi inshallah rabbi aussi di nekk ci tamam bi fi milliers yi fu gars yi mën seen tank ñu mëna fa tek suñu tank pour sensibiliser les gens ci dëgg voilà loolu lañ ko bëggé moy suñu mission inshallah mais li nga wax euh, dafa daf may niru lu doy waar reggae ci bi boîte loolu nu mëna ra démé non reggae si bul baat parce que dama koy wax dama ne reggae musique la boo xam day yóbbu nit si yàlla day yóbbu nit si ay xar baax day defar doomu aadama léegi su ñëwee si biir boîte yi milliers yi fekk ñoo xam ne seytaane daf leen tënk ba ñu xam xar baax wala luy baax fa lañ nekk fa lañ leen di fekk rukk leen ni ñuy wax rukk dañ leen fay fekk defar leen ba mun a soppi seen jikko ba ñu mën a topp suñuy concept ñu jàll leen si gaa ñu baax ñu àggal leen si ngëneelu yàlla ñu loolu lañ ci namm parce dañoo gis ni musique warul yàq dafa war a te gis nañu xëy na du ñu cité dara mais gis nañu musique léegi tey ji da ngay xool rek talent bu fi génnee benn album benn 4 mois ñu fàtte album Bob Marley kañ la de ba tey musique am ñu ngi koy dund mel ni tey la Bob Marley taxaw ah kon léegi il faut artiste boo xam ne yàlla dafa la jox dénk la wax nga war a wax yow war nga sédd sa wax sa diggante ak sa borom ba looy wax ak doomu aadama rek war nga mën a tabax jëm yi ba ëllëg bis booy dem suñu borom di nga ànd ak mbégte loolu mooy suñu concept fexe ba mun a tabax jaam yi tabax ruu yi jubante leen si baatu dëgg te si musicalement lañ koy jaaree pour jubante leen incha allah. bi nga xamante ne ñoom ñooy nouvelle génération bi dugg ci biir euh, musique di def reggae ban ban message nga leen di lancer. waaw mu lay lancer moom mooy combat wu dëgg la te combat buy dëgg nag di yomb parce que dañ na dëgg nit ñi dañ koy xeebu tey soo taxoon léegi tey jii nga da ngay woote si dëgg. taxaw tey jii si mbedd bi tey yaakaar naa ni nga woon ni fukki nit wala fukk ak juróom nit mais seytaan soo ko doon wañ soo ko doon woote léegi yaakaar naa ne benn waxtu mu fees del waaw comme nañu xam ni combat bi même ni si wéet wéet nañu engage ñun ñëpp xam ne message bi ñu bëgg véhiculer nekk na message boo xam ni lu war a tabax askan la lu war a tabax réew la kon jeunes yi maa leen lancé gën a jàpp xam ni combat bi combat dëgg la te combat yàlla la bu kenn bàyyi waaw ñun parce que suñu njëriñ la te njëriñu askan la ak saa kon ñun ñëpp nañ si jàpp ñu xam ni waa rek lañ si gis moo tax mooy moo waral suñu combat ñu ànd ak euh, suñu groupe bokk yugus voilà kon bokk yéen ko déggandoo groupe bokk yugus euh, daal di leen invité yéen ñi nga xamante ne yéen ndaw ñi ngeen daal di ñëw rek euh, bokk ak ñoom li nga xam ne reggae bi reggae roots daal di ñëw rek defaraat ci koy defaraat lépp nga xamante ku nekk dina ci mën gis boppam xam naa rek dañu lay bàyyi nga daal di tàggatoo ak mbokku téléspectateur Dakar Actu waaw man may euh, tàggatoo mooy waa Dakar Actu maa leen di bëggee parce que yàgg naa leen bàyyi xel ci actualité yi ngeen di véhiculer Sénégal ma leen di ñaanal aussi seen combat tamit combat ma neex la chute la boo xam ne aussi gën leen ko yaatal xam nga gën leen ko dundal aussi tamit ma leen di jox invitation le 15 décembre ngeen ñëw Douta Seck le 20 ngeen ñëw ñu passe soirée bi parce que euh, maanaam soirée bi dina neex lool parce que sooy xool Douta Seck lañ ko defee te gratuite la entrée amul. aussi si biir restaurant baa ngi fa ko bëgg consommer naan ngir ñëw ñu ànd ci di ci woo Sénégal yëpp dina benn mun naa benn explosion buy war a buy ñëw la luy judd la Sénégal pour Sénégal yëpp mun ko consommer aussi euh, di nuyu kon sama staff idée ñoo xam ne ñoom ñoo ma wër di nuyu kon euh, ay grand Aziz Aziz sama petit frère Aziz Sax di nuyu aussi tamit euh, Lamine Faye aussi di nuyu Abiboula aussi di nuyu staff bi du ma lim ñu si bëri mais artistes yoo xam ne technique ànd ak man aussi depuis deux ans yomboul du xaalis du dara muy ay euh, différents nationalités comme nous ma koy waxee ay camerounais ni ay togolais ainsi de suite su lim du jeex. di sàkku sénégalais yi maa ngi leen di ñaanal ñu yokk ma ñaan te ñu xamni combat bi suñu combat la na ñëpp a ñëw aussi tamit euh, le 20 décembre muy lu ñuy lancé muy lo xamni ni sénégalais yaa ko bokk muy batu deug muy lignement ak groupe bu ñuy wax bok yugus dañ ñëw def benn live boo xam ne incha allah dañ feeñal euh, ay mbir yu nice nice Inshallah. Inshallah, kon euh, yéen a ko déggandoo Ligma ak Bokk yugus di leen invité ci signe le le 20 décembre n'est-ce pas le 20 décembre ci Douta Seck euh, ngir daal di rek lancer album bu bees bi lépp nag ci Esprit Roots da ngeen di ñëw entre.